tarixa tijaan yi tarixa yoon la waaye bi nekkee yoon duwut na ay tànk mooy dox ci yoon yi waaye xol mooy dox ci yoon wi jox la benn adresse boo xam ne adres boobu moo lay guider ba nga yegg fi nga jëm adresse biñ lay après boo ko jëlee ndax loolu ñu lay wax ne doo ko boole ak beneen tariqa jubluwuñ ci lu may yow bi nga koy ñaan dangay ngay jàppee sa bopp ci réer gi nga réere sa digganteeg sa boroom da koy jàppee feebar ñu ne la hôpital bii ñoo koy traité mënoo nag di dem ci hôpital bii ne da dem ci hôpital bële mooy doo ko booleeg benn hôpital bii a koy traité xemal ci hôpital di koy traité rek soo ko jàppee dootoo ko bàyyi ba ba ngay dee hôpital bi comme ñooy traité jàngoro bi takkool ak hôpital boobu ñu ne la dootoo siyaare wali wu dul tiijaan yi maanaam doo gi beneen sëriñ bu dul tiijaan yi mooy lan bëdeel ba médecin bi nga xam ne moo lay traité bul ko fa bàyyi di uti beneen médecin emal ci médecin boobu même les jëmmi hôpital bi sax nga teg défense te fekk ay médecin yi médecin ña nga fa waxtu woo bàyyee médecin bi nga xam ne yow moo lay traité dugg ci beneen médecin rek su keroogee yàq nga sa faj nga dégg bu baax su keroogee yàq nga sam paj dégg fa nga retourné yaakaar ne da fa wéree doo fa wéree parce que hôpital bi benn la médecin yi benn lañ dégg nga directeur hôpital bi moo leen seet ñoom ñëpp dégg kon nag saaxir bi mooy baatin kon ngir dawangoo coangoo charte yooyu rek fa illaahi alhamdu loolu la soo ko jàpp soo koy jàpp doo ko booleek beneen tariq too ko bàyyi ba keroog ngay dee doo fréquenté beneen sëriñ bu dul tijaan lépp loo xam ne yaakaar nga ko ci yàlla yaa ngi koy yaakaaree ci buntu Cheikh na Ahmada Tidiane radiyallahu taala an d'accord nga loolu amiin